baatu baatu tawhid mooy lislaam rek ana lu mu wax alxuraan dafa dafa wax ne ba'da a'uudu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa ya'iduhu yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim nee na alxuraan day nettali luqmaan ab mi ab Éthiopien la woon ma nga dëkkoon Éthiopia Éthiopie Éthiopie gi la dëkkoon nit ku ñu leen kukku luqmaan gis naa benn téere boo xam ne maanaa léegi imam Asyuti moo ko bind ci Luqmaan nee na nit ku ñuul la woon ne mu ne Luqmaan di wax doom ja booba di ko laabire di ko maanaa léegi waar ana lu mu ko wax alxuraan ne netti de benn éthiopien bu dëkk fële alxuraan ne netti la mu doon wax ak doom ja dane yaa bunay yow sama si doom rikk waay rikk laatu tushrik billah bul bokkaale yàlla de inna shirka la zulmun azim foofu foofu dana damay damay teewlu sëñ Talla Ndiaye moom mu nekk ci marché marché bi ogas te jaay ay téere nee na ku ñu wax sëñ Abdou Ndiaye la wax nee na nettali nee na wax ne ne sëñ sëñ Bachirou mas na ko wax ne ko mbaa jaaxaru leen ne sëñ bi dañoo dégg dara ba leen nee na si si si sëñ Bachirou ne ko lay sëñ sëñ bi waxuñu lu may ragal leen yàlla te jaamu ko ragal leen yàlla te te jaamu ko ko kon sëñ baa ngi wax kon ak sëñ Cheikh Gaïndé Fatma ak sëñ Bass Madina ni leen kat fondement bi mooy laa tushriku billah bu leen bu leen bokkaale de du tax inna shirka la zulmun azim bokkaale day tooñaa ngi juréy la maanaa zulmu nag tooñaa ngi ju nekk dañu wax yent bi baa ngi sa sa tuur saam nee noonu su bis bañ ci ay lëndëm lay doon ay géer lu lëndëm tooñ gi gën a rëy mooy nga tooñ yàlla ci bokkaale ko keneen maanaa beew ba ba ne keneen fàtte yàlla mu tekki lan mu ne wa wasaynal insaana bi waalidayhi xusnan xamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaaluhu fi aamayni an ishkur lii wa li waalidayka ilayya almasir mu ne kat dénk dénk naa nit ne ko sëñ sëñaari wujur yi dénk naa la ci nga nga nga toppatoo leen sa ndey nag moom moo ci gën a gën raw ndax moom day dara ëmb ci ya maanaam toppatoo la bu mu wasi ne muy muy toppatoo la ba ba nga fer lépp di ñaari at mu ne ko nanga ma kon njukkal kon njukkal ma njukkal ma njukkalit sa ñaari wayjur ya yaakaar naa kon maanaam bu ñu waxee ne njukkal ko ci ci ci ci kon mooy kon ji leen teranga gannaaw ñu ñoo jiwoon teranga kon kon fay leen ko am na am na gars yi bari ñoo xam ne nag suñu bokki mari mari léegi nga koo xamante ne day jël maanaa soxnaam dugal ci tabax yu baax yi jël wacc baayam ca tabaxub démb ba ku ne xam ne loolu moom bokkul ci njukkal déedéet du njukkal la gën kay moo ko war a moom waaw kon su moom teer ci ni ko wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'uma waaye nag sa ñaari wujur yi kat bu boo toppee nag ñu ñu dem ba ci yàgg ñu ñu bëgg ne la yàlla ak ak diw lànkal nag loola abu ci horeeta te di la anhu maanaa léegi ndeyam dana ko woon damay maw du ma lekk du ma naan grève de la faim fekk génnew ci diini ji ah dafa ne ko déen nag mu loolu bu dee loolu képp la moom lànkal woon xam ne kon topp wajur yi bu ñu bu ñu jóg ci ñuy bokkaale la yàlla kenn si kon si si kon sëñ bi kon topp leen ci lu neex yàlla kon moo kon si si sëñ bi neen kon waaye nag wa saaxi ma fi dunya maarufa bu la wajur yi bëggee weddi lu yàlla maa bëgg la ko bokkaaleel lànkal lànk gu rafet gu tegg gu teggiinu mu ne xam nga yow lu ma lay digala wa tabi sabila man anaaba ilay yow kat bu la sa wajur bëggee weddu la yàlla lànkal te te topp ñi nga xam ne ñoo di dellu si fi man ci wëggam yi te na nga xam kat summa ilay marjikum ndax na nga xam ne kat ci man ngeen di dellu su yàgg sa ndey ak sa baay fa unabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun da maa leen di xaal sana nettali la ngeen doon jëf fekke woon naa ko de maanaa ba tey Luqmaan ma ngay wëy nag di di di laabire doom ja lu am solo ci ci wóolu yàlla ñu fàttali mbokk yi yéen a ngi ànd ak rajo Dunia 105 point 0 kaddu gi bàyyi ko fii ci studio Serigne Fallilou Mbacké immeuble Mame Thierno Birahim Serigne Moustapha Diop Koki ci pencum Sénégal tey mu indi li nga xam ne noonu la Serigne Mouhamadou Moustapha moom Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul waajalee woon taawam yooyu laay wax sax ak rakkam yooyu Eh, nga tolloon fa am solo nag bu Serigne Mbacké Madina Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma jàngee ba ñëw mu ne leen dem leen ci seen maam Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul mu ñaanal leen waaye it natt it fan ngeen toll ci njàng mi waaye léegi yow nga ne sëñ bi def leen jàngloo ok saar bii ngay wax nii waaye defe naa daf leen doon jàngal kon ñu bàyyi la nga wéy loolu laa bëggoon a leeral pour ñi ñuy bëgg a doon rek jaa asante asante jabar ñu ñu ñu ñu yegg si sëñ bi di leen jàngloo ok Luqman ok ay te Luqman fu mu toll ak lu mu wax Luqman ma ngi wax ak doom jee naa ko ngir bëgg rek mu wóolu yàlla yaa bunayya in innaha in taku mithqaala habatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko mu ne ko ay sama si ndoom bul tiit ci alal bul tiit bul tiit loo ñàkk mu ko waaye donte ne fépp la fépp dugub boo xam ne wa war nga koo m- m- ci war a dugg sa biir. ci ci ci xar dal mooy mu mu mutarde mutarde bi ñuy wax. mu ne ko bu dee mutarde la boo xam ne doom booba wa ci war a du dugg ci sa biir. suñu moom dana la ko andil. donte ne doom booba. mi ngi ci aw doj. wala ci asmaaw yi la nekk. wala ci suuf yi. yàlla dana ko indi de ak fu mu mën a nekk fu mu nekk. lu ko waral yàlla kat latiifun xabiir la yàlla moom ko sew mbir la ko dañ kumpa la. kon bëgg na kon. doom yi di kon wóolu lu yàlla kese.
doyloo ko
mu ne ko mu ne ma ngay ñëwaat nag ci ci ci beneen ndinkaan. Luqmaan naan doom je yaa bunay aqimi salaa wa amur bil maaruf wanha anil munkar wasbir ala ma asaabaka inna dalika min asmi l umur yow yow sama si ndoom rikk waay na nga na nga saxal julli yu juróom saxal ko de na nga saxal di di digle aw yiw lu baax waaye waaye rikk doom na nga tere lu bon ay rikk doom na nga muñ ci lu lu la jot yii ma la dénk day saxoo julli saxoo digle lu baax saxoo tere lu bon muñ nga la dal loolu day bokk na ci yi gën a foor li nga xam ne moom la së- sëñ dafa di wax naan fendi kon li li li gën a fendi jikko yi gën a fendi kon ci la bokkoon waaye nag mu ne ko nag wala tusaxir xaddaka linnaas bu doy li nag bu doyee di de bu toroxloo toroxlu nag de xam sa bopp de foo jëlee dëkk sa nit rek maanaam sa sa sa blaire bul toroxlu kat waaye nag wala tam si fi la ardi maraha boo toroxlu wutit nag effet yu bi nga wax man ciy ñëw mu ne ko kon waqasit fii fii machika booy dox na nga ne kocc kocc fii dox kocc waaw ma moom ma maanaam Luqmaan moom ma mi ngi wax nit ki nu nu ci na war a dal mu ne ko nag wax dut min sawtika soo dee wax it na nga ko nànkal
parax parax de maanaam wax ji fexeel ba waa ji di di ko dégg te te te doo ko ko ko ko tàngal mu ne mu ne mu ne ko ndax kat li tax ma wax loolu bàyyi yi yi xel ne kaddu gi yàlla gën a bañ mooy kaddu gu ñuul ak mbaam mbaam ina ankara aswaati la sawtu tolxambir kaddu goo xam ne maanaa léegi day lëjël nit ñi ñaareel ba dañ naa la mbaam su su su ngaaxee seytaane la gis kon kon day mel ne kon yow sa kaddu doo ca wax lu baax ba dafa lënkaloo ak seytaane kon bu mu nuru kàddu baam na ko sori na ko sori mu ne ko waaw yéen ma ngay wax doom ji naa ko alam tara anna allaha saxara lakum ma fi samawati ci ci ci ma fi ard wa asbaxa alaykum ni niamo zahiratan wa batina mu mu ne ne ne waaw ko ko kon yonent suñu baam mi ngi dir si waat di wax ak yonent bi naa ko nag ndax kon xamu leen si gisu gisu leen suñu baam ni mu leen tàggatare asamaaw yeeg suuf yi lépp lu ci nekk sëmbatal ci ci ci yéen xewalam nga xewal gu gu fës gi ak gu feeñ gi xew xewalu gu sayir yi mooy dund gi gi gi ñuy dund mu neex lu waaye xewalu bàtin yi moo mooy secret yi ñu suñu borom di tum tum tum na jox loola su su aaya bay dem ba saraway saraway ci dem ba ne nag ah wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin koo xam ne nag da dangaa tànn ak cuuf yankeewu ba jooyal lépp sa mbir mépp ci sa borom kooka day faxad istamsaka bil urwatil wusqa kooka day jàpp na ci buum nga xam ne du doon mukk te nag ngeen xam ne wa ilallaahi aqibatu umur na ngeen xam ne kan mujj gi gépp mujj maanaam ca sunu borom lay mujj dëgg la lu waay ne lu ne sunu borom da dana la ko teelal bis ne la mi ngi nii film bi film baa ngi nii ma ne kon ma ne maris naa jël kon tiire ay leçon yu am maanaa ci wa loolu suñu tubaab doon jàngaloo si sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma ak borom àddina nga xam ne ma nga doon taxawlu ca yaa ngi duhu ja di bàyyi na yaa ngi duhu nga xam ne bu bu suñu tubaab bu ne waxu yaa ngi duhu ñoo xam ne kon dafa dafa jublu ne man kat maay wax ak yéen
moo tax ma ne la jàngaloo wu leen da leen di jàngal jàngal kon bu jëkk bi mooy lu xamaan ne ñu ab yonent la am na ñu ne nag du yonent xakim la waaye yàlla moom maanaa maanaa kon philosophe la alxuraan fonk na ko fonk na ko ba tudd ko moom loolu lu ci mën di am xalaatkat la de xalaatkat la kooku nag moom dafa ñuul kukk Éthiopie la dëkkoon ah nit ku ñuul la nit ku ñuul kukk la seetlu kon Sëñ Tuubaa bi muy jël ci alxuraan référence mu jël nit ku ñuul
delluwaat mooy day delluwaat ci la waxoon rek de.
fële si yu jibu sabab gis mi adama fo suñu bes mi xis mi ñuul du tee teggi cër bu dóor loxamaan teg te teg na ko de loxamaan bu dul ab yonte moom nag mu dem génneel ñu loxamaan boobu jëlal ñu ko comme référence wallaahi ndaxte bu ñu ko ñeneen ñu doon jël danañ bàyyi loxamaan foofu dem indil ñu keneen indi ku weex waaye tey dafay day day baax mu indi it koo xam ne waaw nit ku ñuul yàgg naa yàgg naa xalaat mook yàgg naa doon penseur Ngoog.
yàgg naa doon philosophe ngoog mu indi ko jox ko ñaari sëtam yooyu référence référence te te te te ma ne li ñuy wax naan rasul xekma mati maxaafatullah maanaa kat maanaa kat ginnaaw xekma dëgg-dëgg xam-xam bu bu leer li li li ki maanaa bi ci gën a foor mooy wattu sa borom te xam-xam bu- maanaa eh, maanaa léegi sofos wala wala xam-xam bu bu bu leer mooy lu ne nga nga nga nga- nga teg ko palaasam waaw kon kon daa mel ni kon xam-xam bu leer mu ci ci gëm yàlla mooy nga wéetal ko nga wéetal wéetal ko ci ne kenn la mu mu- mu yàlla wéetal ko ko ne ko mooy benn buur moo la moom lépp ci moom lay jógee rek wéetal ko rek ci ci ne it maanaa yow da nga koo war a jaamu képp
wéetal ko nag ci ne da ngaa war a sellal njaamu ko loolu kon da- dana leeral li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne afdalu kalimatin xultuha ana wa wa nabiyyuna min qabli laa ilaha illa allah nee na gën ji baat wax ne wax naa ko maag yonent yi fi jiitu woon mooy ñu ne laa ilaha illa allah yàlla dong képp rek
doy loo ko te xam ne loo yor lu ne moo la ko jox képp
loolu de mu ngi leen di eh, ba mu leen di wax ne tey même bu fekkoon ne benn doom képp la nga war a ko wannaasu waaw fu mu munti nekk sunu borom dana ko fi Da ko jël, andi.
jox la ko ko andi.
defe naa ne kon fu jamono toll lu mu métti métti métti métti Waaw, métti waaw.
ñu bàyyi xel ku ci ne kenn ku ci nekk it sa wërsëg ngay lekk na na na na- moom rek na Hmm?
rek rek rek moom moom loo mën a la ma ne kon bu bu dee laa ilaha illallah ju da- dañ ci digg ne am na am na dàq waaye dàq ga nag am na am na am na settee Y- y- dàq gi mooy y- y- yàlla day dàq lépp lu luy taxaw fi kanam xel naa ko maay maay dara bëgg yir xel mi yàlla ne kooka dinañ ko dàq mu mu ñëw fi wallaahi waaye nag am na ko fi ne koo xam ne mooy yàlla te yàlla moom xëñu la nga xam dara lépp lépp loo xamut yow a Hmm.
suñ tuwaay ne woon na ci xaw ma lu yëllu ci ab jaam xanaa lu ak cakkutéefam agut lépp loo bëgg a mel mën ko mel Sëñ Tuubaa fi tudd ko ku bëgg a mel ne Sëñ Tuubaa mën naa am mën naa am de
comme la sëñ Saliou doon wax rek sëñ bi bu déglee ba pare rek kenn ku ci nekk naan moom day wax rek waaye loolu kenn mënu ko dit xam nga Sëñ Sëñ Tuubaa mel ne ma mën naa am yow doxal rek xam nga xam xam nga mu toll yow Jéemal mel ne dit moom.
yu ma xam nga maanaam yaafus moo naan waaw Sëñ Tuubaa dafa dafa dafa dafa waxoon ne yaafus moo naan mënuma da- da- dane ku ne mënuma mel ne sama baay yaafus la
fa lay tàmbalee dit dit xam nga yow dama dama naan li la war kay mooy nga jéem a mel ni sa baay képp la loolu rek la loolu rek la waaye nag ndax waaye di nga mel ni moom wala doo kooku mel ni muy moom jëf yàlla jeex na yàlla yow demal rek waaye toog naan déet man mu mu mu mënuma mel ni Sëñ Tuubaa ah loolu loolu moom da- da- dafa dafa yomb loolu moom da xam mooy taxaw benn place rek Ta- ta- taxaw rek ci ci- ci kon ñaareel ba mu ba ba ba mooy maanaam topp gaa yu baax yi mag ñi ñi ñi fi jiitu woon du firi lu may maanaam topp leen ca leneen